रे रणवीर ñu lay ziar bu baax ah Cheikh Diaw xam nga dafa nit ku baax te dafa bëgg suñu la suñu ko open press bi ngeen bis. ah bis bi ak rek dal yàlla may ñu ndam incha allah. muy bëre ko am te moo ko jiitu ci lamb lan ngeen koy euh, digal. ah kooku kooku du dara kooku bu ñu koy jàppee dañ koy dóor mu daanu. du dara. billaahi dañ koy duma daan ko. mbër ziar naa la maa ngi maa ngi bëgg waalo. delloo ziar Ndiaye namm naa la. maa la raw yaa ngi si jàmm. lan moo waral teewaay bi tey. waaw teewaay bi kon ni ñu koy defee rek mbër géej waay yëpp. parce que kon géej waay li ñu wax rek. union la force. mbooloo mooy doole. te ñun gis nga ni mu demee. ba fi Kara bi gis nga mbër yi yëpp dañ ciy bokk moo tax ñu ñëw teewal tey suñu rakk Cheikh Super Diamono di ñaan yàlla yàlla may ko ndam ci grand combat bi mu mu jubul quoi yàlla may ko ci ndam la léegi. nga ñëw gis ko également nan nga gis état de forme waaw Cheikh moom sant yàlla parce que liggéey na quoi parce que di trois mois yëpp ñu doon ànd entraînement gis na ne liggéey na li si des mooy yàlla suñu borom dimanche mu may ko ndam rek. mais bu bëree koo xam koy dee. waaw waaw waaw surtout loolu waaw. waaw li ñu koy digal mooy. Gris Bordeaux moo ko mag. mais da koy jox cër rek. ba jàpp ko rek incha allah daan ko. mais am na lu ñu koy dee quoi mais loolu nekkul dañ koy lii quoi. dina jaajëfal le grand sans raison kenn doon ko présenté gannaaw lay ziar. waaw maa lay delloo ziar bu baax a baax. maa lay gis foo laaxatu. waaw maa ngi si dëkk bi rek di xaw a laaxatu tuuti rek ndax dañuy waajaat lu bees tàq moo tax ñu xaw a laaxatu gëj naa wax sax si télé moo tax mais ñi ngi waaj di ñaanal suñu boy bi nga xamne mo am combat yalla may ko ndam bu sedd guy bu oyof toll ndax boy bu baax la boy bu oyof la xam bo ba léegi nangu won genn mais motax ma genn tay ñew soutenir ko ñu gis muy bëre ko am tane mo jiru ci lamb lan nga koy diggal lolou du dara cheikh dafa yag ci lamb cheikh ba muy xale ba léegi si lamb la nek ba muy xale ba léegi si lamb la nek ñun bañuy ñuy bëree mbapat ba legi mi ngi suñu ginnaaw dañ teel sàkk kon xam nga ne ko gënu ko yag ci lamb waaw kon dal paré ngeen ci tous les plans yag na Sọlọ́míyá bóyí, òyìnbó ga bóga, òyìnbó ga bóga, òyìnbó.

te xam nga ñu dañ ñaanal yàlla yàlla suñu borom dafa lu sedd guy ci barke si naam it incha allah ñu gis ñu bëre ko am ne moo ko jiitu ci làmb nga gisee loolu waaw loolu parce que tey jii nit moom boo nekkee xale nekk ci si làmb tout le temps nga bëri ñu la jiitu ci nga mun a avancer kon tey dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko ndam te xam mu waree waaj na bu baax muy ci côté saal côté xeex côté lépp li ci des daal mooy waaw ba tey ñu ne ak le grand champion Ndiaga Dollè te ñu lay ziar champion. waaw maa leen di bëggee di leen nuyu waa Guédiawaye info. namm nañ la. bilaay maa leen raw sama gars yi. waral teewaay bi tey. ah teewaay bi lan waral teewaay bi. dégg nga li nga wax de. teewaay fii lu ko waral. ah teewaay bi fii. Cheikh suñu rakk la suñu doom la suñu xarit la. moo xawle te bu xawle dañuy bàyyi li ñu doon lépp ñëw ndax doomu Géejawaay la doomu Géejawaay bu xawle rek ñu dañuy ñëw sollicité ko su jëndul ko di ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndam ci combat bi jëm moog du waar yëpp yàlla na leen yàlla may ndam. ñu gis ni c'est la première grand combat est-ce que loolu pression ci moom. waaw dina pression mun na bañ pression mun na ba ñàkk bañ am pression ndax mbër yëpp yemuñu mais lu mën a xew mooy dina jóg forcé ko may ko doole ñaanal ko yàlla may ko ndam ci combat bi jëm. bu loolu weesoo bi nga bëree ba rek toogaay bi yàgg na waral. waaw bu bëree ba tey maa ngi sama dugub rek di entraîné man moom ma demoo fenn man ah man moom ma mbër boo xam ne day lambar lambar fii lambar lambar faa man moom maa ngi sama maa ngi entraîné jàpp sama ñaambur ku ma làmb boole rek ma xamante yi bari na mais xam nga yaa ma gën a xam gars yi koo ngi sama xam li dem nak bolo mo ci wax daa am lu ma daa am ma métti daa may waajal maa ngi sama rukura di liggey lay tagato wa di ñaanal yalla cheikh yalla may ko ndam ci combat bi mu jëm moog dugar ak mbeuri nga xamantene ñoo liggey way am combat ku am combat yalla na yalla may ndam di len bëggee nak wa géej way info bu wëre a wa waaw boo noné ba tay ñu nekk ak nga xamantene moy euh, le coach Philippe di liggey ak Cheikh Super jamono ci wàllu musculation ak fitness coach ñu lay ziar. wa na def maa ngi nuyo maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu booy seet sama booy la xamante ñu fi Sénégal sax hors Sénégal la ñu xamante xam nga rek fekk ne man man ak moom ñoo bokk même koñ comme genre yooyu bu amee maa ngi entraîné maa ngi defal lépp di nuyu sama père Pambay di nuyu Patin di nuyu ñoom ñoom kii mu tudd sax. waay waay. Moussa Patin Moussa maa ngi nuyu ñoom. Tafa Tafa Ndiaye di nuyu booy écrit yëpp di nuyu écrit Mor Fadam yëpp écrit Ndiaga Sarr yëpp maa ngi leen di nuyu képp kuy bëri Guédiawaye rek suñu mag Balla Gaye maa ngi koy bàyyi xel ci moom ñëpp ñoom daal de guerre ñëpp maa ngi leen di nuyu Guédiawaye rek bokk benn laa gëm man 100 pour 100 bokk benn la ban laa gëm man Ndiaga de sama doomu nday la ñu ñëpp ñooy foowandoo ñoo defandoo lépp Guédiawaye bi dañu bëgg a nekk mu nekk benn comme am ñu am ko Guédiawaye tamit non lépp jàmm lépp jàmm instant ni kanaan ndogal rek te ñaanuñu ko mu yegg si ñun jàpp daan nag la ñu gëm sport moom xale moo koy def te mu ngi ci moom wër na yàlla mu ngi ci moom boo xoolee forme état mu am ni xam ne liggéey na xam nga sant suñu borom rek yàlla may ñu ndam ñoo ngi si géej waaye fete ko fii. mais xoolee aussi dafa ne liggéey lu bëri ci waa rapidité ak souplesse lu waral lool. non man parce que ñoom dañu manqué loolu quoi boo xoolee. mbër ga mbër mbër yëpp la dañu manqué souplesse boo xoolee yéen a mbër dëkk parcelle ni mbër dëkk parcelle ni xool seen forme état combat bu amee mën nañ jëli combat ba combat bi jeex mais ñun fii da gis benn jàppante rek gis gars yi commencé ngang seen gémmiñ yi loolu du yoon man mbër boo ñëwee ci man souplesse gi njëkk a liggéey balaa ngay liggéey leneen souplesse xol bi mooy tax nga combat mun na diire doo am benn problème. maanaam endurance daal. endurance rek moom laay liggéey ak mbër yëpp waaw ñëw ci man dama la njëkk da ngay def endurance ba soo ko mën def musculation musculation ci yow la soo ko bàyyee mu bàyyee soo ko jàppee mu jàpp la mais endurance fu mu nekk foofu rek lay dëkk comprendre nga. alors coach le de la fin. waaw ah di gërëm géej waaye di ñëpp rek di gërëm ñëpp yàlla yàlla Cheikh am ndam rek loolu rek laay gëm ndam moom yaa koy liggéey pour nga am ko xale bu ci bëgg entraînement fii dem nañu am am na yoo xam ne am nañ loo xam ne man maa leen ko sas salle bi gratuite la ñoom ñëpp écrit ma fa dem bi gratuite la xam nga. mais ñoom la la moo leen dese ñoo ñoo entraîné rek moo des nañu entraîné rek bu ñu entraîné rek am ndam. lay jaajëfal am problème nekk mu nekk rak ci mbaar récemment mu am ndam lu solo ci kaw boo seen ñu lay ziar. waaw maa ngi doon ziar waaw ziar waa Guédiawaye di nuyu gaa Guédiawaye yëpp waaw di nuyu sa site internet bu baax a baax Guédiawaye TV. lan moo waral teewaay bi tey. waaw sama doom day moom moo ko préparé quoi waaw ñoo doon dem di entraîné. di ñëw tamit mu may indi këram tamit di jox xam nga ñuy ñu ñëpp waaw kon c'est normal teewal ko teew quoi. mais muy bëre koo xam te ne moo ko jiitu ci làmb lan nga koy digal. waaw non man ay ay comme jiitu ci ay espérance yooyu ak xale bi ma mën gëmuma loolu quoi. waaw ndax xale mooy doori mag ëllëg. waaw man li ma liggéey rek laa gëm quoi te gëm naa liggéey na si combat liggéey loo xamante ni non mosu ko liggéey si combat dañ si coono yi métti métti métti métti. la am solo léegi fan nga jëm. waaw ndam li di sant suñu waa écurie en même temps waaw si samay morom laa jëm quoi waa ñi waa ñi si kaw rek nañ ma may loxo ma yëg waaw. doo lim waaw non jarul lim waaye ñi si kaw xam nañ seen boobu waaw ndax am na ñooñu ñoo ñi si kaw ñenn ñi defuñu defuñu lu ma deful quatre combats def quatre victoire kon nañ ma may chance ma yëg daal. lan ngay tàggatoo. waaye sant yàlla rek di ko ñaaral ndam muy Cheikh Super Diamora ndam lu dul am coono ndam lu sedd guy si barke alxuraan. ¡Suscríbete principal jamono ziar naa la. waaw ah, bisimilah rahmaani ngi lay dolli ziar ginnaaw bi ma sant yàlla julli séenante bi di sant samay ñaari waajur di sant samay entraîneur yëpp yi fi teew di sant suñu président. nga am combat war a bëree le 21 avril prochain sa diggante ak Scorpion ban état d'esprit nga toll. waaw instant bii nii lu ñu waroon lépp liggéey nañ ko. waaw maa doon ànd ak mafia kara san sama grand frère sama papa Alioune Seye 2 mu ñuy teg lu ak à suñ serveur mu ñuy teglu lu li ma waroon liggéey lépp liggéey naa ko instant yi damay xaar le jour ma wane li ma liggéey si kàttanu yàlla suñu borom ndax xale laa ay xale ñoo ma yónni yàkkamti ma waaw. ngeen bëreeg également koo xamante ni moo la jiitu ci làmb est-ce que du waral nga koy sóor aussi. non man làmb aw ma lenn lu ma siy sóor làmb aw ma lenn lu ma lu ma siy sóor ndax man xale laa. su ma demee ba am lu may sóor si làmb rek damay bàyyi bëre fi mbër yu mag yi egg laa bëgg a egg si kàttanu yàlla suñu borom. mu dàll lay jiitu ci làmb aussi nekk mbër bu mag boo nan lan nga nan nga nar a ñëwee da nga ko nar a xaar wala da nga koy jëli. man awma lenn lu may xaar bu arbitre sifflé bu neexee yàlla suñu borom damay dox si kawam bu bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko daan ko. kàttanu yàlla suñu borom. ñu gaar gis également bu ñu xoolee ak sa combat bi passé volume bi wàññeeku na loolu lan moo waral nga opté pour loolu. waaw combat nee naa la ma fi akara bi Alioune Seye sama père moo may teg lu métti si diin yi damay entraîné ba yaakaar ne tey damay dee ma ñëw kon ne si père Gomes ñëw école sama entraîneur Ngaylum ah Saar Saari père Gora Fall père Mao ak teg ma lu métti billahi wallahi taalaahi dama see entraîné entraîné entraîné ba sama gars sax dañu may yërëm. parce que damay tok di deg, nit ñi ne duma entraîner entraîné tax combat bi ma def lo xamantene ñun dañuy gisal seen bop le jour nag ma ñew woné ko si kàttanu yalla suñu borom combat bi sax yaag inshallah allah. ci wàllu mobilisation lan ngay wajal waw limay wajal moy gis ngeen fi tay ni mel damay ñaan kepp ku dëkk way nak man way la am man doomu way la bàyyiwuma kenn kepp ku dëkk way ma ngi lay ñaan nga ñew soutenir ma xamne ne man sa rakk la sa dom la sa lepp la muy mag ndaw yen ñepp ngeen ñew jàppale ma xam ne man sen dom la ngeen gunge ma ndax stade bi wul dañoo wara a dox dem daan di dox di ñëwaat kon yen ñepp dama dama leen ñaan muy mbër bu mag muy boy mag pa mère bàyyiwuma kenn ñepp nañ ñew jàppale ma yàlla may ñu ndam si carton yalla suñu borom ndax bi moy suñu premier grand combat dañoo wone dañoo wara a lu leer nañ te bu booba inshallah allah dañuy gis lu ma liggéey si kàttanu yàlla suñu borom. waa Cheikh si fer jamono mu mel na ni sawaay nee na la yow à chaque fois sooy bëree dañuy gis ni ki ngay bëreel moo lay ëpp doole te yow gis na ni fi nga jaar sabala gis nan sa diggante ak giroo bu seeraas waaye yow noonu lan la lu waral loolu parce que nun bëri yooyu ñu ci bëri noo lay ëpp doole dafa am foo leen di jaar wala lan waaw loolu sant yàlla la man nee naa làmb xooluma si lu nooy su ma si doon xool lu nooy lamb xooluma si lu nooy fu mbëri mag yi egg laa bëgg a egg soxloo ma sox ñu may tànnal lu nooy bu neexee yàlla suñu borom. kon maanaam Cheikh daal dafa fonk ay entraînement ba mbër mu mag ak mu daw xàmmewu leen bu baax ndax man lamb laa am damaa bàyyi lu bëri ngir lamb kon damay rey sama bopp lamb laa am. Cheikh jamono yaa ngi bëreek yaa ngi am drapeau bu nu mel mu ne drapeau Mamadou Diouf xale bi nekk ci RTS. waaw loolu damay rêvé pour bëre ko kon comme que tey jii dem naa ba koy bëre sant yàlla la bu baax a baax kon li may ñaan yàlla bu jour boobaa ma ñëw wane li nga xam ne moom laa liggéey yàlla may ma ndam incha allah man xam naa ne suñu borom daf may may ndam si kàttanu yàlla suñu borom. presse bi yëpp teew nañu fi tey Guédiawaye Info Elmo TV S24 Moodu Elmo TV boo amee loo sànni ci Cheikh Super Diamano eh, tey waa Guédiawaye rek a fi daje. asalaamaaleykum mbooloo mi di nuyu waa presse bi yëpp man Cheikh Super Diamano leen laa koy laaj mu dem ma sama dafa ma laa bëgg. nga am mbër moo xam ne dafa dër kis mooy Scorpion Scorpion yi ñëpp xam nañ ay combat nu muy demee ngay quatrième combat bi nga xamante ne nii grand combat bu SR Arène Nationale bi mu tijjee ba léegi yow yaa fa bëreegum grand combat ak kan ak Pape Tam numéro 2 yéen fa bëree waaw tey loolu nooy mobilisé tey waa Guédiawaye tam si SR Arène Nationale bi. waaw loolu sant yàlla la rek sant yàlla la bu baax a baax li may wax waa Guédiawaye ñëw dimbali ma jàppale ma soutenir ma. waaw billets yi dañ koy maye gratuit am nañ 4 blocs dama bëgg jour boobaa ñëpp ñëw. man bu neexee yàlla onze heures laa la wax damay dem stade onze heures damay dem stade na ñëpp ñëw teel a dem stade ñoo war a xam ne stade bi suñu stade la ñun ñëpp ñu mobilisé wu ñëw ñun yàlla may. stade bi seen stade la waxal si Scorpion loo koy préparé. Scorpion li ma koy préparé moom xam na ko ndax keroog jàppante nañ man ak moom mënante nañ xam na ne xale laa. est-ce que peese ndax li ko jàpp nga fone ba yaa ko ëpp doole wala. man xeebu ma dara ku ma mënti bëre du ma ko xeeb mais dinaa ko jox cër ba mu moom mais buñ jàllantee. bis buñ dalantee dina xam ne man xale laa te damaa liggéey. waaw nee na bu ñu jàppantee dana xam ne moom xale la tudd fa liggéey. looy suuraale ci Scorpion. man aw ma lenn lu may suuraale si beneen mbër waxuma laaj Scorpion. Cheikh Super Jamono di nga xeex ci combat bi. combat bi lu mu laaj bu neexee yàlla suñu borom. naa ko def. ah nu delloowaat micro bi ci Guédiawaye Infos. waaw mbër question bi nga xamante ni moom la ñëpp di waxtaane ci grand place yëpp mooy sa premier grand combat est-ce que loolu du nekk pression supplémentaire ci yow. non loolu mënut a nekk euh, dara si man dax man damay génn di bëri si àll bi dama koy jaabee kon làmb yi ma doon bëri rek mais bii laa gën a fonk nag bii laa gën a fonk ndax mooy sama buntu làmb moo tax may woowaat waa Géejawaay pour ñëpp ñëw jàppale ma di leen woowaat na ñëpp ñëw dimbali ma xam na man seen rakk laa xam nga di woo monsieur le maire Bayri Sey mu jàpp si combat bu baax a baax sama papa xam nga di woo Aline Sall Cheikh Mbacke monsieur le maire Bayri Sey di woo soxnaam Adja Marème di ko waaw di ko jaarale si moom maa ngi nuyu soxnaam yëpp xaadim xaadim borom Malika maa ngi koy woo mu jàpp si combat bi Seydi Maam Diarra xaadim Meng borom Malika Seydi Maam Diarra ak Assou dama koy woo mu ñëw jàpp si combat bu baax a baax yaa may dégg mënu ma géejawaay daal xolal képp ku nga xam ne muy autorité képp koo xam ne yaa ngi biir géejawaay maa ngi lay woo nga ñëw jàppale ma si combat bi te yàlla tax papa Ablaye Sall père Ousmane Kane ah tonton Abdou ñoom ñëpp maa leen di woo ñëw jàpp si combat bi xam nga di nuyu sama yaay bu baax a baax sama yaay day jàpp si combat bi bu baax a baax sama rakk maman Ndiaye daf may jàppale day dëgër bu baax a baax mu ñëw di ma dimbali si yu bëri Ousseynou aw ma fayam sama goro moo takk sama rakk Ousseynou aw ma fayam bu baax a baax day ñëw di ñu jàppale bu baax a baax lu bëri waaw. waa Cheikh Super Jamono damaa gis ne yeneen mbëri mooy mbëri Pikine yi ku si am combat mbëri mag ñi taxaw la tey lan moo tax mbëri gi yaay mag ñëw ñu taxaw Cheikh Super Jamono. moom moo lay wane ne géejawaay instant bi daa am lu fa xew muy mafia Kara mafia Kara amul benn écurie ku ñëw da nga siy bokk. xam naa mafia Kara amul kenn écurie ñëw ñëw mais tey Cheikh Super Diamane si open press wala si mën a gis benn ku si mën a ku mel ne Balla Gaye wala guy gi. waaw parce que amaana tey jii man jeune espoir la moo tax tey jii jeune espoir yi teewal ma mais amaana ñooñu ci kanam incha allah dinañ ma kon su ma déggee sax dañ laa xeeb. non xeebuñu ma sax xeebuñu ma mais. ci kanam incha allah bu neexee yàlla suñu borom ñoom dinañ ma teewal mais ñi ma teewal nii xeebu ma leen de man nii ñooy sama Balla Gaye ñooy sama lépp nuyuwaat Père Alioune Seye bu baax a baax sama Alioune Seye sama waaw jërëjëf xam nga géejëway maanaam booloo nanu doon nanu benn ndax te école li bu Papa Kane gis nanu ko fi gis nanu fi Bounama Rest gis nanu fi Balla Gaye ba ci yëmbal timit ñëw nanu e kon mu mel ne ni ñëpp teew nan te xam nga ni duy gi gis nanu fi teew wex seen ngi fii Alun sey di a ngi fi alun sey de mi ngi fi Mbaye Tine ngi fi ah Saka Dior doon na puteew na kon Cheikh Super jamono wotel sante geureum rek nu tagato parce que waaw may sama soxna ma ngoy sante bu baax ma ngi gis lu may muñal sama soxna si awma fayam di waaw di wo wa fan ok ñëw japp ci combat bi wa gol tapé yaay deg di wo wa jamono ñëw japp si wa jaxay xam nga wa jaxay ma ngoy jidale ci si boobe japp ci wa notaire wa waa notaire waa Gueule waa Gueule Tapée xam nga waa Gunaas Yeewu Deux Jiboo yaa may dégg yaakaar waa koñu daaru Cité Junkoom notaire bàyyiwuma kenn amul géejawaay daal ah bàyyiwuma kenn di woo sama monsieur le maire Bayri Sèye di woo waa Hongrie ñu ñëw jàppale ma te xam ne man seen